tiis naqar ñi ci ñàkk seen liggéey ñi ci ñàkk seen bakkan. parce que bu mu commencé noonu la ñu wàññi ñu bëri seen liggéey. moom fekkoon nañu si benn formation boo xamante ne dafa obligé dagg si rythme bi ñu nekkoon. man mii di wax nii sax corona bi dal na ma fi ba ma toog benn 15 jours boo xam ne liggéeyuma. parce que dafa wàññi suñu liggéey lu bëri. waaw vacciné naa. jël naa sama ñaari dose AstraZeneca. bu mu ñëwee su ma woo téléphone ma dem def sama deuxième dose sama carte ngi nii. maa ngi nii j'ai pris mes deux doses de vaccin et dara daluma loolu moo gën a loolu mooy gën a dara sa xel. man maa ngi vacciné wu 24 février sama carte ngi nii. waaw vaccin yi moom bi ma koy soog a dégg xawoon naa ci am tiit daal. rapport ak réaction yi ak effets secondaires yi. man de wax dëgg yàlla yëguma ko franchement. lii nag am na ci ay rumeur yoo xam ne dañu naan politique laag lii laag lële la. man kay esprit tranquille laa ci am comme que vaccin wu naa aar naa bopp. li muy digal sama mbokk Sénégal yi surtout jeunes yi mooy ngeen dem vacciné wu ji. vaccination bi rek moo fi mën a jële feebar bi feebar yi fi nekkoon yépp vaccination moo leen fi jëlee. dañuy dem vacciné wu dina xamante ne vaccin yi dañuy aar di aar suñu mbokk dëkkandoo. te dina la permettre tey jii nii ngay gën a mën a nekk ci say mbiru bopp. j'ai que vingt ans et j'ai pris mes deux doses juste pour me protéger et protéger les gens qui m'entourent. ñu respecter mesures barrières yi di dee takk masque yi euh, di wàññi rassemblement bi.